nekkul boo déggee rap galsen c'est pas que rap bii di daw Sénégal. mais rap seen mooy li nga xamante ni moom lañ defaree nan noonu lañ ko defaree ba mu nekk rap seen esprit bi wala voilà bi. parce que daa am fuñ ko tënk te loolu mooy problème bi en fait. c'est comme comme comme comme donc je si taay kon. Mhm. comme comme exemple boobu duma si taay di ko joxe parce que c'est très très très mhm. mooy bu El Jazz feesalee Grand ñu ne. yàggul noonu rap bi feesal na Grand léegi bu ko feesalu loon est-ce que dinañ ne rab bi feesalu ko. ah mu ko feesalu loon dañuy ne El Diaz feesalu ko. Hmm. mais daf ko feesal ñu ne rab bi mën na feesal Grand Théâtre genre dañoo dese gëm seen bopp affaire. ok dañoo dese gëm ni El Diaz dëkk Médina. warul mën a feesal Grand Théâtre. maanaam pour ñoom exploit daal. fekk dafa war a nekk rab gaal seen boobu la am nag. ok dañoo am problème mu gëm ni fii suñu dëkk la amul luñ fi mënul def. Hmm? amul luñ fi mënul def loolu dañ ko war a gëm ba pare. ok après nag yaa ay ay ay ay gars yu bëri yoo xam ne dañoo jël rab bi kii ko dañ ko dañ ko fàttu au fait genre ay yenn gars yi nekk ay si internet bi mhm. yenn animateurs yi mhm. genre dañuy jël affaire bi def ko benn code barre yi xam xamuñu sax lan mooy daw actuellement ci hip hop niveau mondialement après yow nga bëgg ñun ñu génnee suñu hip te am na rapport yoo xam ne boo leen ko limaloon ay international rapport rapport internationaux boo leen ko limaloon fii si ay ay animateur yàlla xam na ni hmm? da ngay surpris est-ce ñoom xam nañ ko parce dañ naan du ñu déglu rap ñoom rap Galsen mais nan ngay doo déglu rap bu ñeneen nga bëgg génne sa musique pour déglu ko tu vois mais ñu mm-hmm. yàgg mooy parce que ñoom foofu lañ fekkee seen jeunesse loolu la tombeel mm-hmm. mais booy tey seen jeunesse lu mu tombeel mm-hmm. bàyyi leen ñu jeunesse boobu noonu nekk si rap si si si net bi naan ñoom ñooy ñoom ñooy juger rappeurs yi ñoom ñooy joxe seen critique ñoom expert nag dañoo bëri Sénégal expert yoo xam ne yow kenn joxul la certification amoo di amoo dara luy prouver yow expert nga xam nga après dañuy mujjee yóbbu rappeurs ci benn benn camp boo xam ne duñu amati liberté hmm. bu ñu gëmul seen bopp bien sûr parce que rappeurs yu bëri dañu naan dañuy dañuy sóoraale en Oh, dañuy sóoraale bu ñu génnee benn benn chroniqueur lan la nar a wax si man. gars yi lan la ñuy wax. comme que gars yi ñu def lu ñu war a def parce que gars yi ngay def rap engagé. pour ngay wax problème société bi tu vois bañu ma mais sois libre. bay dem pour wax si société da ngay libre tu nekkul dañu lay obligé pour nga dem. wax si société war ñu conditionné yow bu la obligé pour nga dem wax tu es fake. parce que yow dañ la obligé moo tax bu ñu la obligé loon doo ko def xam nga yooyu yëpp day rey suñu créativité. loolu day tax gars dañuy tënk duñu duñu ñeme parce donc boo ñemewul mënoo créatif. day donc rabbi, bi lu tax mu taxaw. yooyu yëpp si la bokk. ok Moi, tax man rab gaal seen terme boobu ça me dérange. ok. voilà pour képp ku bëgg am samay actualité samay news xam si nek. laa nekk à ci chaîne YouTube bu Vibe Radio peace.